asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences tey dañoo dikk rek pour bëgg a waxtaan waxtaan woo xam ne wu am solo la ndax yanu xëddeen a déggoo rek a ci am solo te buñ déggoowul bokkunu galeen bu ñuy tëgg ci orgam képp képp képp ci la ñuy dëkkee ci la ñuy sax euh, dama leen a bëggoon wax rek jëme ko ci le panafricanisme le panafricanisme yéen sénégalais yi bu mu leen jaaxal le panafricanisme est né au Sénégal le panafricanisme li ko gën a siiwal rébellion bi nga xam ne jaam yi def esclave yi def nañ ko ak rébellion bi nga xam ne noirs américains yi ak les noirs de la diaspora def nañ ko loolu moo ko dekkal mais Sénégal la soqi ko Sénégal la cosaanoo ba Cheikh Anta Diop di suñu doom tabaxaat ci lu bari le panafricanisme du darul ak bañ du dara bañ ak nooteel du dara lu dul sama yëfa maa ko moom dama ci sax wàcc ma ba ma maa lànk booleeg sur le culturel mu ëmb lu baree baree bari loo xam ne ci lañ war a sukkandiku di ko jeex waaw mu tabax suñ souveraineté ba liinu moom lu xam ne noo ko moom ndax nit yor na ba tàyyi lu mu xamut gis na ba tàyyi loo xam ne moo ko moom da koy romb dem le panafricanisme euh, bu leen jaaxal Sénégal la cosaanoo bu jamono yi nga xam ne jamono ya nga xam ne Thierno Souleymane Baal mi ngi taxaw wala révolution Tororo c'était du pur panafricanisme pur panafricanisme jamono yi nga xam ne Mamadou Lamine Dramé de retour en Turquie ñibbisi songu tubaab bi songu tubaab bi xeex ak moom loolu ak mbañ la woon c'était du panafricanisme l'idée de Mamadou Lamine était de récupérer l'empire du Mali pour dire ko empire révolutionnaire et islamique moo Turquie doon ko jàppale ci suuf le panafricanisme kenn du ko jàngal droit Sénégal Lat Dior Ngoné Latyr est un panafricaniste Djéri Dior Ndella est un panafricaniste Samori Touré mi rek c'est un panafricaniste le panafricanisme culture la culture la boo xam ne danga koy dund mu doon lu naturel waaye du ay texte du ay règlement du ay làkki français du ay fippu déedéet le panafricanisme est une réalité bon li nga xam ne moo suñ différence ak les autres pays africains ils n'ont pas compris le panafricanisme le panafricanisme nekkul ne da ngay tooñ wala da ngay xeex wala da ngay saaga wala da ngay yëkkati drapeau di yuuxu non le panafricanisme est une réalité naturelle boo xam ne moo ne ci yow nga di ko dund day dem ba mel ne diine wala mu ëpp diine ci yow sax Cheikh Ahmadou Bamba est un panafricaniste il a refusé devant les blancs Djeri Dior Ndelle mi ren commandant Sata mais c'est un panafricaniste mais Serigne est un panafricaniste ah Modibo Keïta panafricaniste la kenn Thomas Sankara panafricaniste la. kon ñun sénégalais bu leen déglu ñi nga xam dañuy wax benn aw tur lañ ci wut ñaar ay président ñu leen jox xaalis ñett ci corruption de mentalités bi ci la ñuy dund moo tax yéen Sénégal ne attention nii waxit surtout nos frères camerounais ils n'ont rien compris ils n'ont rien compris et sax d'abord quand le Cameroun xam nañ panafricanisme xam nañ ko docteur Paul Ebega je ne sais pas xaritu ele benn élève Cheikh Anta Diop moom lay fàtte toujours mu ñibbi Cameroun wax ko fa siiwal ko Cameroun yi dugg ci Mais quand des Camerounais insultent des Sénégalais, dañoo xamul taarix bi te man bëgguma wax ci yooyu ndax tant que ñi euh, tiraillement rek mooy li arrangé tubaab bi mais Cameroun les Camerounais la nan wax ci Paul Biya d'abord d'abord le panafricanisme du ay coup d'état le panafricanisme c'est de l'expérience nga xam ne le civil le militaire ak ñun ñëpp mën nañ koo bëgg gëm ko di ci seenu lenn kepp suñ souveraineté souveraineté boo ko amut yow amoo carte d'identité dama ne ko souveraineté réew mu ci amul mu ko amul rek tu n'es pas indépendant sa kër sa kër sax souveraineté bu ci nekk boo xam ne xale ñu laa ragal ba bu dara xewee si kër duñ la ko wax nun kenn kenn duñ jàngal le panafricanisme ñun le sénégalais notre culture ak notre façon de faire dépasse nos frontières ba tey nous sommes des parents j'ai pas essayé de créer une différence walla lenn mais dama bëgg nii nga xam ne moom la président Diomaye jël président Ousmane ko jël ñun ñëpp nañ ci ànd nañ ci ànd surtout kii nga xam ne door dikk toog un militaire qui a fait un coup d'état te am réewam wala ay soldats yu def coup d'état jël seenum réew Sénégal amul coup d'état nous avons gagné les élections presque je peux dire 67 pour cent tey lu mel noonu buñ ko amee doo tëb rek ñooxu ci ay soldats loolu kuy nit ku ne war nga koo xam war nga koo nangu et ce n'est pas le Cameroun qui va nous dicter comment dama ne seen président ba muy nekk président Diomaye judduwul Diomaye judduwul waaw loolu mooy régime dictatorial boo xam ne kooku moom àll bépp wér na leen Assimi Goïta nit ku am solo la nit ku dal la nit ku teey la xam na ni c'est militaire mu dal mu dal Ousmane Sonko ak Assimi Goïta réeru lu toll ne tarfatal ay ni parce que Assimi Goïta dafa dund loolu ñu naan le panafricanisme surtout Modibo Keïta doon un panafricaniste boo xam ne ci ko toroxal ki ko daaneel ki ko gaañ ab sénégalais la c'est Léopold Sédar Senghor qui a saboté ce panafricanisme moo tax suñu mbokki africain yi bu ñu waxee ñu nag le triche la ñuy wax le Sénégal est prêt pour àndi ak tubaab bi toujours loolu mooy nekk idéologie africain bi te africain bi wax na dëgg. kon doomin rey sa maam boo seenu ñuul da ngay daw. le Sénégal dafa in bokk ci yu salte yu amoon Afrique te tubaab bi def ko surtout ànd ko ak ñoom loolu buñ ko nanguwul dañuy am problème comme ñoom yi fi doo fi yooyu ñuy wax di ko jëmee ci Ousmane Sonko di jëmee ci Pastef ak di Sénégal ils n'ont rien compris c'est le Sénégal qui est devant pan panafricanisme le Sénégal lijjanti nañ askan wi taxaw bañ ñu dem élection Sénégal gagné voilà une victoire boo xam ne bu wér la y a pas de coup d'état moom laa leen di wax sànq rek Ousmane sonk ku dal la ku tey la il a l'idéologie de Cheikh Anta Diop te assises nationales yee passé dimbali na Ousmane sonk lu bari lu bari nit la da koy déglu ba mu wax ba pare nga may ko temps dem laaj laaji laajaat gëstu doo dikk tontu ko moo tax bu yàgg ba léegi nii je voulais pas parler avec ces Camerounais là waaw li ñu wax nag dëgg ngi ci. am nañ droit maire am nañ droit mer parce que Afrique war naa dépassé fii Afrique war naa dépassé fii mais communication mënta amee noonu tant que la France mi ngi suñ biir mel na ñu ay silmaxa mu din womat moo tax suñ communication musta àgg ci fenn ba ñëpp di xam les les americain ay ay panafricanistes lañ ku ci mel donc Louis Farrakhan ma xam ko ah kooku c'est pan panafricaniste la ku mel ne Malcolm X Frederick Douglass ñooñu ñëpp si ngeen docteur Khalid Mohamed ñooñu ñëpp ay panafricaniste lañ ba ci biir Afrique ñoom Sékou Touré ak ñëpp mais maanaam dañ dañ dañuy togg te amagu ndab luñ ko yekk ba ku ne mën a jot ci yëf yi ko gën a waral njàng mi ñu war a jàngale ci école yi pour ubbi boppi xale yi loolu moo amut tubaab yi yor nu téye suñu yóor di ko manipuler ku jël sa doom jox ko nit ne ko jàngal ko boo mu jukko jënd ko indi ca dëkk ba moo tax ñu war a dal déglu Ousmane Sonko tey président Diomaye d'accord dem na France ki mu ne dem France gi lan la problème ñàkk ko fa yóbbu la wax man si la man ci Diomaye laa bokk man Ousmane Sonko kenn du ma tàggaleeg moom mais d'accorduma ci dem bi dem France man parce que Afrique war na mën a jóg nag am fulla lépp ñu koy defee seen bopp nu xew ñu defee ko France pourquoi conférence bi defuñ ko Afrique pourquoi conférence bi defuñ ko Afrique pourquoi la France conférence Sénégal lañ ko waroon defee kon ba Afrique yi di indi seen seen i xalaat mais war nañu dépasser state boo xam ne tubaab benn yu ñekk te tubaab bi toogee ba heure bii mu naan souveraineté vaccin yooyu vaccinal yooyu lu tax defu ko daaw lu tax defu ko bu yàgg. coronavirus yi liñ ci jàng président Diomaye ah lu ñor nu ko yëkkati mais loolu am solo Macron loo koy seeti amuluma njëriñ man man gëwuma dara ci Macron xalaatuma lenn loo xam ne dana jóge ci Macron ñëw ci nun jëriñ ñu xalaatuma ko mais ba te am na droit comme dem na ba noppi mu jaar fa jaar fa wax ak moom waxi fulla même bu fekkee ne lu yokk nuyul Macron nuyoo leen rek nga dem sa yoon boo ko jógalee ba jógal ko ba jógal ko nag préparer ko dossier yi boppam kenn ku nekk sa xalaat loolu laa xalaat loolu laa mais bu nangu te buñ xuloo africain buñ xuloo ak ñoom buñ xuloo ak ñoom ngeen baal ma waruma ko wax mais niveau bi ñu am ci tubaab ak xam ngeen xam tubaab ñoom xamewuñ ko noonu tubaab bi dañ koo teel a moo tax tubaab bi créé woon Gorée Saint-Louis Rufisque ak Dakar ni yéen nationalité française ngeen yor loolu lu ko waral dañoo dem ba nànd tubaab bi tubaab bi ni kii daal baal ma ji boole lañ seen biir ñi ci des ma def leen ay ay citoyen indigène ñun ban xamee tubaab bi yàgg na moo tax o Cameroun Gabon bu ñaari Cameroun di Cameroun di xuloo da ngay dégg moroom bi ne ko mais pour qui tu te prends pour qui tu te prends tu n'es pas Dieu tu n'es pas blanc tu n'es pas français tu n'es pas sénégalais mais pour qui tu te prends loolu bi muy dañ Gabon yàggut barki démb rek la ko Gabon yi bàyyi loo am lu ko waraloon tubaab bi dafa aay ci sa écologie moo tax mu jël di quelques africains ni ay tubaab ngeen ñun ñu gëm ko même au au niveau du Sénégal ñu dëkk Ndar dafa ñoo naw la ñu ci des ñu dëkk Dakar ak lébu yooyu dañoo defa ne dana supérieur parce que tubaab ba leen ko jàngal ñu leen nax di leen takkali médaille ah loolu lépp rôle bu joué boo xam ne tubaab bee ko def pour des formes de manipulation des peuples africains waaw buñ xuloo buñ tontu président Ousmane fi jëm xam na ko am naa ci lu ma wér man Cheikh ante Diop ma yar ci moom laa xamee lu may xam musuma ànd ak kenn musuma ànd ak kenn ci politique lu Cheikh Anta Diop ak Sékou Touré ku ak Cheikh Anta mu jaral ma bàyyi sama lépp en Allemagne dem fekki Sékou Touré moom nekk fa moom ba mu génn àdduna ma door takk samay bagage le panafricanisme bu leen déglu congolais yooyu di wax bu leen déglu camerounais yi même Kemi Seba Kemi Seba wóor na yàlla ne xamu ci dara Kemi Seba wóor na yàlla ne xamu ci dara mi ngi wax nag top ci niveau bi daa mel ne xale bu yor à chambre à air ci géej gii dox waaye ay bateau yu dëgg dañ koy romb yi dem kéeme say waa chambre la yor di tëmb ci ndox mi waaye jàmbaar la nag jàmbaar la jàmbaar mais war naa dellu gëstu ci waaw waa parti Pastef Pastef yéen lay waxal bu leen dugg ci tiroir yi génn leen ci biti ngeen yee àdduna bi c'est votre devoir c'est pas Ousmane Sonko moo war a yee àdduna bi yéen yéen a war a defar seeni réseaux sociaux di ci wax yéen par le canal de cette nouvelle technologie de l'information war nga mën utiliser pour défendre le panafricanisme Ousmane Sonko mi ci yoonu panafricanisme bi mais nit nit bu xiifee day yàkkamte ndab li ñëw moo tax il faut ñu jox ay signes ay signes yoo xam ne de séparation la waruñoo bàyyi rek mu demee la continuité loolu di tiital africain yi ba mu leen tàlla ñu ragal ñu ndax suñ passé historique li nga xam ne mu wér na président Ousmane Sonko jóg ci armée française bi laa CEDEAO baaxul tur yi tur yi sax bëgguñu ko bokk même président Diomaye discours bi mu def keroog manoon na ne CEDEAO baaxut turi yi baaxut mais format bi nañ ko balewaat noonu suñ biir ñu indi beneen tur lépp lu ci régime nekkoon ñu dindi ko noonu dellu àndaat mais kaay ci CEDEAO CEDEAO kenn du ci dellu kenn du ca dellu CEDEAO baaxul xam naa ko CEDEAO tubaab bi yu ko fi indi pour nax ñu te naxe bi yàgg na loolu la waroon wax wax Mali yi ko le Burkina loolu la waroon a wax Assimi Goïta mais kaay leen ci CEDEAO kenn du ko wax moom wóor na jomaay ne bi baaxul ne ne CEDEAO bi baaxul daanu ci génn te kat mënumaa bañ a ànd ak yéen dama bëggoon ñu toog wax ana nuñ koy bokkee defee ana nuñ koy bokk defee ba génn CEDEAO am beneen machine boo xam ne yoonu tubaab bi du ci nekk mel noo koy bokk loolu day sound good mais kaay leen ci CEDEAO loolu mooy yëngal africain yi loolu rek la mais le président Ousmane Sonko fii munu nu fii munu nu fii munu jëme boo xamee boo xamee Cheikh Anta Diop. boo ko xamee da nga xam ne Ousmane petit à petit lay def yan bi Cheikh Anta yan woon nag du yan boo xam ne gone mën na koo yëkkati déedéet day cof di jël di cof di jël ba ba mi yanu yan mais joma président Diomaye mënta ñëw rek gàddu ndab li dem moo ici yéen Sénégalais foog ngeen muñ tey muñal suñ mbokki africain yi waaw wax naa ne ko sànq des États qui ont fait un coup d'État un État civil ñu ne dama ci seen biir du noonu trois militaires lañ def seen coup d'État géré te ñu ngi liggéey ah ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey de trois militaires def seen coup d'État téye te ci dëgg lañ nekk yow nga état civil nga xam ne sa dëkk xeex dañoo woote naturellement ba nga gañe bagage yooyu mënoo koo jën ni saraax ci esol dal moo tax il faut ñu dal Assimi Goïta xam na Ousmane Sonko Ibrahima Traoré xam na ko le président nigérien xam na kan mooy Ousmane ak la politique qu'il mais nag tant que ñuy déglu Cameroun yi ñuy wax seen réseaux sociaux yi wax daa ñoom confusion ak ñoom Cameroun yi lii ñu wax ci rajo kam dama ne ñoom ñëpp yàlla dogal nun Sénégal ñu jëkk ci réseaux sociaux ñu jëkk noonu ñoo jëkk tàmbalee wax après ñoom ginnaaw bi li ñuy ñëw di wax Nathalie Yamba booy am na man wax na wax ak Paul mu dem mais bu mu attaqué Sonko bu mu attaqué un peuple boo xam dañoo voté gagné peuple voté gagné Nathalie Yamba amul lu mu ci war a wax moom dafa jële Paul Biya ah moo tax ñun Sénégalais bu mu tontu bu mu tontu africain bi nag bàyyi ko mu wax parce que am na droit wax moom itam parce que dafa mer waaw ñun ñi ñuy topp ñun ñi topp bu ñu toppee rek nu àndandoo Afrique li mu bëgg dana ko am mooy instauré Afrique def ko fédéré ko. muy état révolutionnaire boo xam ne bu am souveraineté nga noo ko bokk di jubbanteendoo waaw waaye heure bi moom ñiy wax ñiy wax ay peuple secondaire lañ mais ñi war a wax duñ wax mukk waaye militaire bi aussi am na droit wax na mu ko foogee ak na ko xalaate te wéer ko ci arme yu wóor waaw nu itam nañ am fulla ba xam ne Afrique gi dafa war a booloo nu gëm loolu d'abord dellu gëm ne dellu gëm ne buñ àndul dara du sotti dellu gëm ne tant que la France mi ngi ci noonu duñ dem dellu gëm ne ay organisation yi tubaab yi defoon amul benn bu ci baax bu ci am njëriñ gisuma ko français fa bii baaxul Ousmane Sonko xam ne lépp te ñett yi ma lay wax nii la ko Ousmane Sonko tënkee xam ko waaye doo jékki-jékki rek même booy sangu da ngay summi mbubb summi tànk summi lii summi ak si tuba nga summi ko waxuma laa tul ni am réew nan may tuuti battement le président Diomaye moo ànd ak Ousmane Sonko liggéey te ni ñaan le président de la république xëy na ñoom xëy na Ousmane xam na ko waaye buy demati ak fu muy jëm waaye nay ànd ak Ousmane fu jëm rek ba àdduna bi xam ne ñaar ñi kenn kay jomaay cinq ba ñu ñi xam ko waaw ah, te soldats yi ñu incarné dugalin si biir gouvernement bi nañ góor-góorlu ngir yàlla nañ góor-góorlu ngir yàlla parce que jeune bépp ay soldats lañ kon le gouvernement sénégalais dafa soxla ay soldaar yoo xam ne dañuy ànd ak état bii liggéey di dimbali ci ay xalaat yu bari te nu ngeen fexee te ñoom it ñu jàpp nu ngeen fexee ba armée française dem armée sénégalaise nekk fi nu seet nu koy doxalee entre les frontières on n'a pas besoin de renforcement liñ bëgg entre les frontières nu fexe ba teggi frontières yi man demalante ak a fekkente ke dama ko ñëw waaw waaye bu leen kenn kenn waxati ci pan africanisme ba tax ngeen di ci amuk jaaxle akuk tiit Cameroun yee dañuy wax ku sa gémmiñ xonq doo wax jàmm ku sa gémmiñ xonq doo wax jàmm ten bokk ñaanal le président Ousmane Sonko ñaanal le président jomaay yéen des intellectuels ngeen di wooye seen bopp de Pastef comme ñee dañuy wax yéen ngeen leen wax te bu ngeen di wax ngeen wax a ju civilisé wax joo xam ne ku ko dégg ku ne xam ne kii boroom xam-xam la su ko defee nu bokk nag di yaakaar ne plus tard daanu mës a ànd bokk lépp maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax di yi ñëpp ma bëgg nu ànd ak dal ànd ànd ak dal fi président yi joxoñ xam nañ ko fi Sonko jëm xam nañ ko yàlla bu cet cat dugg man la dinaa Ousmane Dramé bu la réveillé conscience